wa bokk internet di ba tay rek ñu nekk ak le grand chroniqueur mam les comme ni nga ko tam diñ ko defale rek journée bu jeex rek day mom dañuy décortiquer le combat yi tey jam production mam dal ñu fi wowon amul journée bu am solo digënté lay Pythagore ak ñàkk joriñu daa ci toftal ki am tane moy Zal Bawol ak euh, brise de mer numéro 2 diggante wulli ak bi pado ba tuddee ko le combat des amateurs mam mënuy rek ñu doo ko euh ma ngi leen di fay di dund ayas bakay di nuyu chandum di nuyu waa Guédiawaye info surtout yeen ñep di leen sante di leen gërëm comme d'habitude rek di gërëm sumay frère di leen nuyu aussi Cheikhou depuis Allemagne grand wax Wade depuis München xam nga di gërëm ñoom El Hadj Wade Ousmane di gërëm suma mag El Hadj Ndiaye ñu naan ko Momadou Diop nekk ci Oklahoma City di gërëm jabaram Jooja Ndiaye xam nga ak waa Liberté 6 yëpp extension bi di leen sant di leen gërëm di gërëm aussi Xaddam Diop depuis Toulon waa Darou Moussi la ñëw na ci màggalu Darou Moussi kii am la 20 di leen nuyu yéen yëpp quoi. mais maam nan nga gisee journée bi tey làmb ji. non journée bi combat yi neex la euh, jàmm mi tëgg combat yi xam na ne combat yi neex la daanaka combat yi mu boole yëpp ay combat njarndeem la bëri nañ ko ci fair play que le meilleur a gagné donc loolu lay ñaan yàlla di ñaan combat yi bañ am yenn tension yi ñu koy bëri nii ci fair play que le meilleur gagne. ma ñëw ci le combat des amateurs diggante Wouly ak Big Pato nan nga gisee làmb dinañ nga ko doog a tigoole. non Wouly ak Big ci combat bi combat bu metti ñaan na suñu borom. ñaan na suñ borom boo xoolee ko bu mu amee doom naa la ko tuddee kooku wulli def na loolu waaw waa kër waa kër El Hadj El Hadj tamit jàppale nañ ko. waaw jàppale nañ ko. Aziz tamit dugal na ci loxoom xam naa da ciy bañ a feeñ rakkam moo ko gunge yor cummikaay gi. waaw ba rakk ji ba Sora Malick ba rakk ji jàppale bi euh, wulli tey wulli am na ndam am na ndam lu rëy ndax aussi dóor na bi poto dóor boo xam ne boo xoolee jour bopp bi dafa am enflement. yaangi deg bim koy dem songu ci la ko yokkee euh, big poto def 4 appi donc muy jël bu leer nañ loolu nag dina ko may beneen combat moog liiru jaan waaye nag dañuy xaar ba combat ba taxaw yaangi deg ñu doog a wax ci combat boobu mais maam combat bu dina doy war de combat amateur lay doon tamit non combat ñaar ñoo xam ne ñu bëri wax lañ kenn du may sa morom dara léegi nag lii problème mooy ku gën a liggéey de toute façon wuli dynamique bi mu nekk nii ak li mu daj ci combat bi contre big poto ak liggéey bi mu ci liggéey ak ñaan yi mu ñaan yàlla ba yàlla wuli si ko yàlla na gën a yokk maam bu ñu fa jógee ñu dem ci Zal Baol ak brise de mer numéro 2. Zal Baol xam nga mbër mu dul xeex la mais bu jàppee action bu mu entamé bu jeex moo tax bi ko brise de mer bëgg a indi xeex daa jàpp ba mu jàppee la yeggale finition am daan brise de mer jël bu rëy bu kenn dul wérante waaw Zal Baol mbër muy jàpp la du mbër muy xeex xeex bu ñu bëgg mais heure bu la jàppee dana def li mu bëgg dana liggéey li mu bëgg bi mu jàppee brise de mer wan na ko ma sa ci bëre mais dafa mel ni Sall Bal da ko sàcc doole. non même mën na ko sàcc doole tuuti mais Brise de Mer liggéey na boo ko xoolee état bi mu indi te damaa ñeme dama bëgg man damaa bëgg mbër muy tooy damaa bëgg mbër muy tooy mbër mu ñeme di tooy boo xoolee échauffement Brise de Mer yëpp mu ngi sottoo gàllaajam yi damaa bëgg mbër muy tooy xëpp. mbër muy xajam mbër muy xajam tooy xëpp loolu dama ko bëgg ci mbër. Brise de Mer liggéey na ci combat bi liggéey bu metti mais xam nga Sall Bal la mbër muy bëri te du te bu jàppee combat bi jeex. maam ñu dem ci grand combat bi diggante ki nga xam ne laay mooy laay Pythagore ak ñax jaruñu. Euh, laay Pytha laay Pythagore bett nañu bari bettul ñu bari liggéey na doole ànd naa ak Modou Lo dem Espagne boo ko xoolee xam na liggéey na mais combat li ma lay wax ci combat yi nit ñi war koo nangu mooy ñun bu ñuy wax dara nekk ay préparateur physique nit di liggéey ak ay mbër di leen tàggat di leen yokku xam-xam la lay rectifier lañ lay wax mooy chronique maanaam xeexu mbedd moom doon xeex ak ñàkk jariñu te ñàkk jariñu du xeexkat ñàkk jariñu boo xoolee dernier combat fii dafa dawa dawa daw bu mujj gi doomu daangu daa xam ne da koy jubloo mu ne ko tëpp mu daanu donc mu ñëwaat tey laay laay chargé ko ay coup ba mu ko chargé daa waroon riib daa war mbër day dër mbër damaa bëgg mbër muy dër ba mu dëree dafa waroon taxaw mii ma bi xool ba xam ñàkk jariñu da yooru bu yooree mu plaqué ko comme forum la daan ko jël bu rëy mais daa topp xeexu mi di di ñaq jëriñ daa rasu laay doole ma ko daan moom moo daw xeex moo daw bële moo daan boppam moom laay Pythagore. kon la déggee daal li nga xamante ne mooy ñaq jëriñ dafa piégé laay laay Pythagore. non loolu rek la amoon ci combat bi ndax ñaq jëriñ du mbër muy xeex soit day daw yooru su soit bu dawee xas ba jàpp dootu bàyyi laay Pythagore li mu waroon def mooy bi mu dawee chargé ko ay coup ba mu daw recul bay wuti saako yi daa war a nëb taxaw parce que ponkal chaque fois bu nit roccee ko yow yaa jiitu ndax sa poids moo lay daaneel. poids bi laay Pythagore jot ak liggéey bi mu yor ak liggéey bi ni mu baaxee ci moom ak état bi mu indi ba mu dawee sarsu ko ay coup la eh, ñaq jariñu daw reculer bay jege saako yi daa war a taxaw dir wala mu jàpp ko dir yaa ngi dégg bu bu ñaq jaru ñu sulee ko mu palaaka ko comme loolay fooram daan ko jël bu rëy waaye heureusement avant arbitre di sulee bi ma demee jël nga xam te ne mooy doyen nga xam te ne moom lamb rek la xam dani ma dama xamal ni lay Pythagore dafa diis ñaq moo gën a mobile hmm. te neen instant bu lamb ki gën a mobile rek moom mooy ëpp sens pour pour am ndam aussi non moom laa la wax gisoo ñaq jaruñu volume bu war a wut sax wutu ko mais laay laay Pythagore liggéey na doole ci combat bi mais dama ne la xeexu mbedd bi mu xeex diggante boog ñett jariñu ñaq jariñu di daw di reculer def ay pas un peu un peu à gauche un peu à droite la laay Pythagore xeex bi mu xeexee pare dafa war a ne mépp xaar ñaq jariñu li muy réagir waru ko daw song noonu ci xeexu parax parax xeexu mbedd bugguma ko ci mbër mu préparé nii ak état bi mu indi dafa war a na tey yaa ngi dégg jàpp ko ndànk daan ko saa mu sonn. su ma la déggee daal combat bi teg ko ci yoon. non teg ko ci yoon. ma ne la ña ña ko gunge. père Ndiouga Dia ma mu àndal as ma koy ma nek sen ak ak seen école mbay mi ko indi aussi di entraîneur sant ñu ko li waye mbeur chaque fois boy daanu cuune ngay nek amna solo ko mam ñu bàyyi nga tagato waaw comme d'habitude xam li ma wax man mënumaa ñàkk bañ a samay mak ak samay rak cheikh surtout depuis allemagne grand mbay wad depuis munich alaaji wad di gërem sama mak Mamadou Diop ñu naan ko njaay dëkk depuis Oklahoma City diko gërem mi ngi fi senegal actuellement di gërem soxnam Jooja njaay di gërem suma rakk di leen gërëm aussi yéen waa Géejawaay info ti di di wax mbëri rek ne leen chronique yi ñu def chronique yi leen di ñaax la chronique yi bëgg lu leen daan tey bu lëggatee dootu leen ci daan ngeen ciy jariñu bañ a yaakaar dañ leen di classe wala dañ leen di wax loo xam ne yéenul maanaa di leen sant yéen mbër yi di bëgg ngeen góor góorgóorlu gën a jàngi bëre gën a jàngi xeex parce que léeg-léeg nit dana mën a bëre te du mën a xeex waaye bu jàppee combat ba jeex laay Pythagore na ñu ngi koy encouragé di félicité ñaq jaruñ ci victoire bi am na ko nag na bañ a découragé làmba ni mel. waaw bokk na di comme ni leen ko waxee woon rek mu nekk le grand mam Less nekk le grand chroniqueur à chaque fois dañu am euh, mbégte ak sawarte aussi di di ko dégg suñu micro ndax dañu décortiquer combat yi dañu ko faram faaj dañu ko toyal ba mu leer euh, li mu wax rek donc mu doon ko de façon yoo xam te bi muy décortiquer combat yi def ko mu di ŋàññi mbër wala muy critiquer mais da koy def également pour mbër yi daa ci tirer les des enseignements tirer ci ay leçons xam lan moo leen daal ñu mën a rectifier wu di leen sant di leen gërëm rek di sant aussi ki nga xam te mooy suma technicien Bégaay Koundoul di sant waa diaspora bi aussi ñoom alam bu Espagne ak Baye Góor bu Espagne di sant tamit euh, Boubacar bu France maa ngi sant Marley Sané les fidèles internautes di rendez-vous prochainement jaajëf